merci, merci. Merci, merci. Merci, merci. Je suis vraiment content. Merci. Merci, merci, merci. lu la dig doo ko bàyyi. 2018 bi 98 mu ma fekk ma am 19 ans bokkoon naa ci xale yi nga xam ne ñoo doon daw ci ginnaaw kaar bi naan vive la France bi ñuy soog a gagné coupe du monde. boobu xale bu ndaw la njege maar laa woon fukki at ak juróom ñeent laa amoon oto jour yi suñu buntu kër la jaar ñoom Michel Platini ñoom Papin joueurs yu bëri ñoom Alain Giresse ñoom Deschamps ñoom ñëpp nii nañu rombe yi suñu buntu kër moo tax yàlla waxul kenn dara ku leen waxoon ne prochain coupe bi ki koy gagné ki koy ki koy ki koy joxe man lay doon duñu ko gëm moo tax ku nekk na nga góorgóorlu ci li ngay liggéey man bokkuma ci ñi nga xam ne dañu bëgg nekk président France te bëgguñu ku ñuul loolu baaxul parce que yàlla moo sàkk ku ñuul moo sàkk ku weex africain yi dugg ci équipe France bi mais fii nañu juddoo quand seen papa yi seen yaay yi fii nañu juddoo te ñii seen papa yi ak seen yaay yi seen maam ñoo fi juddoo te bis France soxla indépendance di xeex ak Allemagne dañu ñëw ba Afrique ñu dem Cameroun dem Mali dem Congo dem Sénégal ut fa ay anciens combattants ñu kon affaire bi nekkul ci ay boo xeesee ngay doon tubaab fii nañu juddoo Mbappé waxul papam ak yaayam damay juddoo Cameroun ñëw màggee fii Mbappé fii la juddoo Ngolo Kanté fii la juddoo mais c'est qu'est-ce qu'il problème kon ku soxor sa soxor di gaaruwaale di wax yéen nii naan ñu ki ñuul nit ku ñuul loolu yow la concerné mais man Macron wax dëgg yàlla kontaan na te lii amul solo te Afrique yëpp ñu ngi kontaan d'ailleurs sax kii tax may wax mooy mari la Pen Marie maa ngi koy ñaan mu delluwaat ak xelam parce que nit ki doo ko topp ba mu ses nit ki doo ko topp ba mu ses li am ni ndam la c'est tout le monde xoolal ni ma nekki xale bu ndaw amaguma sax 40 ans 40 ans yu manqué benn parce que 19 ans la amoon ñu toog vingt ans soog am ko lii yàlla moo ko dogal mais Marie Le Pen dama koy ñaan mu ànd dal parce que yàlla moo bëgg li ballon récupéré par Mbappé qui donne à Kanté nga kay Mbappé Mbappé Mbappé Mbappé Mbappé Pogba ba ca ba kon je pense que ñi amul soxor lii la yàlla dogal lii la yàlla dogal léegi nag li xar-xoru Marie Marie Le Pen laay bëgg jël décision wax ko léegi léegi africain bu fi am doom bu góor ku fi ñëw am doom bu góor du fay école bu dee football la bëgg dinañ ko jàngal école de foot te du fay dara doom bu jigéen moom dafay basket par la force doom bu góor moom dafay dem football par la force bu leen kenn tere am doom kuy wax ne da ngeen di ñëw fii di wasin mooy ñu soxor ñi def leen ba mu baax yàlla dogal amul problème bëggante leen wasin leen def leen lu leen ne amul benn problème bu leen planning ni ngeen di gën a bëree France di gën a am doole parce que xoolal équipe bi ñëpp ñu ñuul ne ñu ñun dañu France barewul histoire mais àdduna bi wóorul mun nañu xëy suba teel Allemagne sànni bomb te boobaa ñu ñuul ñi ñooy njëkk ñëw tubaab buggul bomb kon bàyyi leen ñëw leen am ay doom am leen ay doom am leen ay doom jox leen jox leen ay doom jox leen ay doom dee leen bébé dee leen bébé dee leen bébé et bu leen di def ay bébé léegi sax d'ailleurs ku fi am bébé dañu lay fay xaalis bu dul jeex parce que soxor baaxul lii bu dul woon africain yi duñ ko am c'est ça la France c'est ça c'était juste loolu laa leen doon wax ma leen di ñaanal yal na leen yàlla may xolu muñ ndax Marie Le Pen ku koy déglu da ngay bàyyi France